sëriñ Xaadim Mbay Longoor nekk boroom xam-xam bëri kilifa yoo xam ne ñu ngi ci biir réew mi di Sénégal moom moo leen jàngal xam-xam gi nga xam ne yàlla suñu borom jox na ko ko yitteem yépp moom moo di fexe ba doomu aadama yi jot ci ñi nga xam ne noonu la ko xam-xam ñoree tax na ba ñii di ak njabootam di waa këram jóg ne dañ koy taxawal ak daara ju mag daara joo xam ne dañ fay sàkkoo xam-xam fas yéene doon liggéey bu mag loolee bi mu tàbbee ci noppi xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir mu am ci mbégte lool te fas ne ànd ak ñoom liggéeyub boobule daara yëkkati ay koppar def ko ci liggéey boobu noonee it la ko yeneen kilifa yu bëree bëri daal di defee. ngir fas yéene liggéey daara ju mag ji nga xam ne dañ fiy sàkkoo xam-xam jébbal ko Serigne Khadim Mbaye Longhor daara jooju nag ci àllarba gi dëppook ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mai atum 2021 ci lañu doon teg xeeru njëkk wi fii ci Touba ci ginnaaw HLM kër Soxna May mu nekk jotaay boo xam ne kilifa yu takk lool teewe nañ ko moo xam mbàkke mbàkke yi cheikhu Serigne Touba yi ay taalibe rawatina ñu bëree bëri ñi nga xam ne jaar nañ ci loxoy Serigne Khadim Mbaye Longhor mu jàngal leen xam-xam moo tax mu nekkoon jotaay boo xam ne bu kawe la woon sëriñ Bassirou Mbacke Abdoul Khadr mi nga xam ne moo yor kàddu yoonu murit moo fa teewaloon sëriñ Mountakha Mbacke Bachir laataa ñuy teg xeer wi nag am na waxtaan wu am solo woo xam ne amal nañ ko fa ci ay boroomi xam-xam ay seede jëm ci sëriñ Khadim Mbaye Longhor ak solo si nga xam ne taxawal daara ak bërëb bu ñu sàkkoo xam-xam am na ko kon mbokk yi ñu ànd ak yéen ngeen teewlu mbooleem waxtaan wi nga xam ne am na ci jotaay bi laataa ñuy فارقة لعادة مفيضة يا حي يا قيوم سل بالسلام على الذي جاء بعسن كرام على الذي جاء بعسن كرام صل وسلم وتقبل ذا الكلام من على قاري ذي الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف قلد الرباح يا من كفاه ذا القرور والنباح ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاك حبدك القديم ساسلا مسلما على مشحشه القلا ناجاك عبدك الخديم ساسلا musalliman ala mustahzi alqula di ko jëmale ci mboolem kenn ku nekk ci yéen di ñaanal Serigne Touba Cheikh Mahamadul Montaxa yàlla na ko fi sunu borom gën a yàggal te gën a dolli ak wéram kàttanal ko bannaal yi mu naalal lislaam yépp mu àggale ko te ànd kook ñun te am ci ngërëmul sëriñ bi kilifa yu baax yi ak dongoy sëriñ tubaa yi noo ngi am mbégte di ànd ak yéen ci jataay bii nga xam ne lenn ci njabootuk sëriñ tubaa lenn ci ahlu alquran lenn ci liggéeykatu lislaam yi ñoo ko tànnoon doon ko woote muy woote boo xam ne ay bokk ñoo àndandoo di xalaat ba gis ne am na menn mbokk moo xam ne am na addis bu Cheikh Abdoul Ahad Mbacke waxoon ci moom ñu ne addis boobu nañ ko jéem a dundal mooy Cheikh Abdoul Ahad dafa waxoon ne képp ku liggéeyal Serigne Touba murit sëriñ Serigne yi ñoo la war a fay ñoom nag ñu seetlu ne sëriñ Khadim Mbaye Longhor. liggéey bii mu liggéeyal Serigne Touba benn liggéey gënu koo màgg ci lislaam ndax li sëriñ bi gënoon a bëggal boppam gënoon koo xeemeem taxoon mu sanc dëkkam bii di Touba sëriñ Xaadim Mbay bokk na ci ñi jaayante wuutu ko ci liggéey boobu ginnaaw bu mu xamee ne borom bi subhaanahu wa taala moo ko ci gàllankoor ci pexey ay nasaraan loolu mën naa firi woo ci rek li nga xam ne sëriñ Xaadim Mbay waxal na ko boppam wax ne bi muy jàngale 1975 bi mu demee ci barabub sëriñ Tuubaa bi jaayante ak moom na ko ñibbisi naa ci sa dëkk bii te yëg naa ne teral nga ma teraanga ju rëy mënuma laa faye lenn lu weesu jaayante sama dund gépp ma di la ko liggéeyal sa dëkk bii ci jàngale nee na yàlla dogal mu dem ci sëriñ Abibu booba ma ngi fay jàngale sëriñ Abibu woo ko na ko man de dama sant yàlla bu baax ci sa jataay bii nga toog te xam naa ne rafet naa njort ne dana gën a sakkante dana gën a yaatu ndax sëriñ bi kat bi muy nekk ndar mas nay doxantu ci dexu yàjjin gi nee na am xelam am lu mu jàpp mu ne nañ ma wool sëñ Mor Dem ñu wooyi sëriñ Mor Dem bi mu ñëwee ba ci sëriñ bi sëriñ bi ne ko li ma la doon doyekat sans borom far na ma ko may li ma la doon doyee moo doon lan mooy sama dëkk bee di Touba dama amoon yéene sanc ko def fa mbaarum seng wala mbaarum gi tax ne ca roon mbaar ma di jàngale loole nag bi nga daataaka ñëw sama borom nee na may naa la ko des na diir bu gàtt fu waay mën a yoreeti ay kàggoom bu ñëwee Touba ak fu kàggu ga mën a jóge dana fa fekk ndaw lu ko ko mën a xamal kon goo ñaan nangu na jërëtul ngay dem daal koy wax na ko loolee mu moo may de bokk na ci sax dex gii ma doon tànqe sama satala gi di jàpp may na ko may na ma ko ci sama dëkk ba ba teg naa ci sama bët kon liggéey boobu sëriñ Xaadim Mbay doon liggéey kenn nattablewul ne bu fi fekkoon sëriñ Touba waxuma la daara waaye defaral na ko ay université yu baree baree baree bari loolee nag moo tax bokk yi àndandoo ne daal ñoom fas nañ yéene wuutu sëriñ Touba ci loolu defalal ko daaray alquran ak joj xam-xam ju mucc ayib waaye mu ànd ak kër goo xam ne dana ne mat ab dëkkuwaay daara joojee nag la ñu doon woote talaloon loxo njabootu sëriñ Touba gépp waaye rafet na njort na liggéey boobu du laal suuf ni ko Cheikh Mahamadul Muntaxa di waxee ndax ba ñu ko tàmbalee sëriñ Serigne Touba Cheikh Mahamadul Muntaxa moo leen wax na sama yëfi bopp yëkkati alalam def ci ne danaa ko ànd ak yéen ba ba muy jeex ndax liggéey boobu ngeen di liggéey moo université bii may liggéey ñoo bokk benn at waaye Serigne Cheikh moom ku ne xam ne ne dundam gépp ci lislaam la koy jeexal ak liggéeyal lislaam moo leen wax ne insha allahu rabbi moo sama daara yi rek laa yemale yëkkati ak lim boo xam ne lim boobee sax yàlla dogal na ci leen jënd kër gi waaye yemu ca sëriñ Moussa moom sëriñ Moustapha moom Cheikh Mahamadul Bachir noonu it la leen wax ne fas naa ko yéenee ànd ak yéen loolu nag moo tax tey jii ñu fas yéene ñëw teg xeer wi suñu noppee nag sóobu liggéey bi liggéey boobu nag moo di Serigne Khadim mbay mii nga xamante ne bii ku ne xam na ne ab taxawaayam ci bokk yi loolu mooy daje bi tey jii incha allahu rabbi ci kanam tuuti kilifa yi danañ tudd seeni tur ñoom ñi fi ñëw su ko defee mën a teg xeer wi ñu bàyyee kàddu gi nag ak Serigne Abdou Lahad moom mi nga xam ne mooy diri sa jataay bi mu leeral ñu programme yi muy tëddee ak waxtaan wi incha allahu rabbi laata ñuy jot ci euh, liste bi nga xam ne moo def kilifa yi ngir ñu mën leen a kon sëñ Abdou Lahad bismillah alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa ala alihi mbokki jullit ñi mbokki taalibe yi asalaamu aleykum ginnaaw bu ñu sant yàlla suñ boroom subhanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa mu ngi am mbégte ngir fas yéene tàmbali ak yéen jotaay bi di sant bu baax di gërëm mbokk mi nga xam ne moo sabab bis bii am di al ustaadul muxtaram sëriñ xaadim bay ñu koy sant bu baax di ko gërëm ci boole gi ñu boole ci liggéey bu am solo bi di ñaan suñ boroom subhanahu wa taala lim dige ci aw yiw ci képp ku la woo ci jotaayu yiw yàlla na ko ci yàlla defal tañ bokk ko ak moom jotaay bi yal na ko yàlla def muy jotaay yu yiw di jotaayu barke di jotaay boo xam ne suñ borom subhanahu wa taala danañu ko dencal fi misanil xasanat wa ma dalika ala bi aziz wa huwa ala kulli cheyin qadiru bil ijabati jadir buur la boo xam ne képp ku ko ñaan te ñaane ko nam ko war a ñaane suñ borom subhanahu wa taala mën na ko nangul yal yàlla nangul ñu ñun ñëpp ngir tënk ndax jotaay bi bëgguñu mu nekk jotaay bu gudd lool waaye bëgg nañu mu nekk jotaay bu am njariñ lool bi li taxoon ñu woote ndaje mi ñaan suñ boroom def ko ci programme bi incha allah nii lañ ko bëgg tërale lépp lu mën a doon xam-xam moo ca war a jiitu ndax xam-xam moo waral jotaay bi am looloo waral danañu njëkk a jox léegi sunu mbokk du suñu xarit al ustaad al faqih sëriñ Mbacke Abdourahman mu yëkkati fi ay kàddu yu jëm ci wàllu soññee ci xam-xam muy kàddu yoo xam ne jàpp nañ ne dana dëppoo ak jotaay bi fii bu sëñ Mbacke joxe kàddu yi ba noppi bëgg nañu sunu mbokk sunu xarit al ustaad al maaruuf sëriñ Cheikhouna Mbacke Abdoul Wadoud moom it mu sof ci tuuti ci tënk loo xam ne dafay gën a jëmmal li sëriñ Mbacke doon wax bu ñaari kàddu yuy jeexee ba noppi nag danañu jox sunu mbokk sëriñ Mouhamadul bala balaa sëriñ Mouhamadul Amin Diop danañ yëkkati benn lamha taarixiya bu gàtt boo xam ne an xayaati cheikh alladi daa ila aqdi hadihi al jalsati al ilmiya al ustaaz sëriñ Xaadim Bay Longoor lamha taarixiya fi masaaratihi al ilmiya xasaba ma yusajjiluhu taarix kon danañ andi ab tënk bu gàtt buy wane kii woote lii mooy kan ak li mu woote nan lañ ko war a jàppe ci tënk su noppee ci kàddu gu danañ jébbal kàddu gi ashaa'iru shaabi al maaruf alladi yatashaa'aru amaami sëriñ Mouhamadul Amin Diop bi nga xam ne toujours damay diir mbagg ci wàllu way mu ñëw gaaral li nga xam ne moom la fi gaaral ci wàllu way incha allah muy gën a jëmbal jotaay bi su kaddu yi jeexee nag euh, ma jébbal kàddu gi sëriñ Fallou Galass Sylla mbokk kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew te war fee jël kàddu incha allahu taala ñu jox leen ñu feeñal seen yéene bu ñu noppee nag ñu teg xeer wi bu ko defee mën yëkkati jotaay bi comme jotaay bi nag lu ci bari dafa xaw a yeex tàmbali dañuy jébbal kàddu gi rek sëriñ bi muy sëriñ Mbacke Abdourahmane kon yaa cheikh al microphone bayna yadayk billahi min bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi ajmain wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziar di ndokkeel bu baax ak sargal sunu mbokk mi sëriñ xaadim ci lu am solo li mu woote muy taxawal daara muy loo xam ne dañuy wax ne lu yeex a am la bu yàgg la waroon a am di ko ndokkeel ci taxawaay bu rafet bi ak liggéey bu sell bi lii sëriñ Fallou Galas doon wax léegi dëgg la bokk na ci soldaar yi nga xam ne liggéeyal së liggéeyal nañu sëriñ bi liggéey bu yaatu ci jàngal njaboot gi ak yar leen loolu am solo la muy liggéey boo xam ne nag euh, muy liggéey boo xam ne liggéey bu am amoo solo la boo xam ne am gi solo foo ko takk weesu na ko ci koo xam ne ay at yu bare bare bari mi ngi sóobu ci waar woo xam ne bu metti la bu jafe la waaye mu dékku ko ngir xam li ci nekk ci ay njariñ loolu nag ku xam sëriñ bu mag bi radiyallahu anhu da nga xam ne li ko gënoon a ci àdduna mooy nit ñi xam ndax mooy tax ñu xam seen boroom te xam seen boroom mooy tax ñu xam seen bopp nit nag bu xamee boppam xam boroomam ak nekkinam ci àdduna day rafet day jàpp waaye doomu aadama ju xamul boroomam xamul boppam dana jafe lool mu nekk ci àdduna nekkin wu xam-xam nag mooy tax nit ki mel noonu moo tax sëriñ bi wooteem bi wooteeb defar la defar nag xama ci jiitu li wuutale nit ñi ak mala yi mooy xam mbokk yi doomu aadama yi mbooleem li ñuy def mala yaa ngi koy def ñu ngi lekk ñu ngi naan ñu ngi nelaw ñu ngi am yeneen waaye xel mu ne ci ñoom muñ mën a muy nàcc xam-xam mooy li nga xam ne eh, moo leen wuutaleeg nit ñi kon doomu aadama mën nañu jàpp ne bu xam-xam nekkul ci moom mook mala yi dox sorewuñ ay àtte loolu nag day joxe eh, lu am solo lu muy wane lu jullit ñëpp war a bàyyi xel sëriñ bi nag xam nañ ne yoon wii mu woote di yeesal diine yoonu xam la ndax ci ñetti wos yi mu ko tegoon muy al ilmu naafiya wal amalu saalix wal adabul mardi ñett yooyu xam-xam bee ci jiitu ndax xam-xam bi mooy tax al amalu saalix mën a am mooy taxit al adabul mardi maanaam doomu aadama su xamut mënta jëf lu jag ñaare ndax jëf ju ñuy làmbutu yàlla xamu ko du ko nangu doomu aadama su xamut ay teggeen yu rafet bi mën a jaxasoog nit ñi dana ko jafe kon ñetti wos la sëriñ bi teg yoon wi waaye bi ci ëpp solo ëpp ci njariñ gën ci mën a jiital mooy xam-xam te it moom sëriñ bi radiyallahu àndu dundam gépp dundam gépp ci bëgg nit ñi xam ci la ko jeexal ñu ne xam nañ lim daj ngir xam-xam am lim daj ci jàng néew na ku ko daj ci bëgg xam-xam di ko wut bi ko amee it lim daj ngir mu tasaaroo ci toog di jàngale di taalif ay téere former ay nit samp leen ñuy jàngale di soññee ci xam-xam képp ku mu gis nga ci yëngu mu teg la fu mu tegul keneen bépp téere xam-xam buñ ko indil mu jënd ko ak lu koy jaayee di yónnee di jëndul ay téere kon kooku bëggoon na xam-xam ya boole ci nag bàyyi fi ay nasaih ay wasaaya yoo xam ne lépp bëgg nañu jàng la bokk na ci lam waxoon ne kunu maan fil bii naa li ci man bihi yuqimu diina li ma leen dénk mooy na ngeen bëgg xam-xam yéen ñëpp la wax kunu maan naa faral di wax ne maani sëriñ bi nag ëmb na lépp ñi jàpp ne war nañoo xam ak ñi jàpp nañoo war a jàng ñëpp la sëriñ bi wax góor ñi jigéen ñi mag ñi ak naw ñi kunu maan lil ilmi fil ilmi raghibina na ngeen bëgg xam-xam ngir jëm yàlla mi nga xam ne ca xam-xam rek ci lay taxawale diine kon mbaarum diine mënta taxaw lu dul ne euh, kennuy xam-xam ne ko téye bëgg gi xam-xam nag mooy tax nit ki wuti ko nit lu mu bëggul du ko jaral sonn du ko jaral dafa effort te xam-xam nag daa laaj ay coona da nga koy jox sa lépp ni mu ko waxee ca nax jox xadayil xaaj da koy jox sa lépp mu door laa jox nam loolu nag soo ko bëggul sam xel na ca nga xemmeem ko doo ko du la ko jaral moo tax sëriñ bëgg ñu bëgg ko kon bokk na ci li ñu war suuxat suñu bopp ak suñu njaboot ñu bëgg xam-xam ndax mooy tax ñu man koo wuti bi ci des it sëriñ bi euh, ŋàññi lool ñi nga xam ne dañuy dox diggante nit ñi ak xam-xam ñetti wa man nahaakum yooyu ku ne ci noonu war na ko bàyyi xel wa man nahaakum an taallumi fa nahyuhu ila dalal yantami wa man nahaakum an taallumi fa innahu yaquudukum linniqami wa man nahaakum an taallumi fa huwa xalifatu laayin almujrimi fi kulli ma yufsiduhu wallahu jal hasibuhu yawmal jazai wal wajal loolu murit bu ne war na bàyyi xel ne sëriñ bi nee na ku tere xam-xam lépp la woo nit ñi ay mbugal la kuy tere xam-xam ci ak réer nga leen jëme kuy tere xam-xam yaa wuutu ibliis seytaane ci yàq gi mu yàq ci kaw suuf euh, li tax loolu mooy ne xam-xam mooy nit mooy diine mooy ak njub sëriñ bi ba muy digal ndaw ñu loolu leen digaloon laa tastaxiloo anil huda seen yitte ne jenn mooy ak njub njub googu nag mi ngi tàmbalee ci wastaxilu bil ulumi wa bil ulumi staxilu kon boo bëggee jub dangay xam yaay kan xam sa borom mi la bind xam li tax mu bind la xam-xam boobu moo jiitu ci lu war ab jullit kon tere ko ayib ju rëy rëy la ju màgg màgg la anam yu baree bari nag nit ñaa ngi ciy tere xam-xam nit dana tere xam-xam te du ko yëg sax na ndax saabu nit sooboo yoonu xam nga war ko caa encouragé war ko koo xemmem loo war ko caa dimbale nga di ko seetaan jàppal ne su bàyyee sa njàng ma yàqu tere te bari na ci njaboot goo xam ne nag amoon na yéene jàng waaye taxaw yam waram la amul tey sëriñ xaadim mii naga ni waroon naa fekk fi ñu ne ay daara yu baree bari lay ubbi ndax taxawaayam ci njàngale njàngale yaa yàgg na euh, gone yi nga xam ne it bëgg nañ xam-xam bëgg jàng mbooloo lañ bari waa na ku sóobu yoon wi dem yàgg mu dëpp ngir ay gàllankoor te moo ne am nañu ko mën a taxaw buñ ko taxaw woon tey mu doon fóore joo xam ne li ñu soxla ci diin lépp dana ko mën a taxawee sëriñ bi woote na ci soññee ci dénkaan na ci dige ji tubaa gii nga xam ne mooy dëkkam bi gënoon a ñor ci dëkk yi gën koo fonk waxoon na ne daara la wajaalhu daban maskara taallumi loolu ñu ñëpp xam nañ na des di daara loolu lañu jàngaloon kon ki fi nekk war naa am ak jote ak daara képp ku fi nekk rek war nga am jote ak daara benn ngay ab sëñ daara buy jàngale wala ngay dong daara buy jàng wala ngay kuy jàppale daara waaye keneen wuru fi am barab ndax barab bi daara la te daara ñooñ daara ñëw fóor a dëkk kon taxawaay bu mel nii sëriñ Xaadim taxaw jàpp naa ne liggéey la boo xam ne ñëpp ci war a jàpp ndax kenn defaralu sëriñ bi fii ci dëkkam bi lu ko lu gën fexe ba njabootam gi jub xam lañu war a xam ne lañu war a mel mbooleem njabootu sëriñ Tuubaa gi ci loolu la nekkoon ba ci sax Muhammadul Muntaqa mi xafisahu llahu taala war a dikk am yéene mottali naal yi sëriñ bi naaloon te mébétoon ko muy def fi daaray xam-xam joo xam ne bu nappee fu ne la nit di jóge di wuti xam-xam kon ku mel ne sëriñ Xaadim mii ma nga ci biir liggéey boobu ndax fekk na moom mu liggéey fi liggéey bu yaatu forme fi mbooloo moo xam ne tey ñi ngi ci réew mi amal njariñ réew mi amal njariñ diine ji amal njariñ yoon wi ndax seen xam-xam ku mel noonu nag saa bu wootee bis kon jàpp naa ne ñun ñëpp ñoo ci war a wuy si waaye ñëpp ci war a jàppit nag rawatina ñi nga xam ne lii muy liggéey mën nañu jàpp ne seen ndénkaan la ndax sëriñ mag bi radiyallahu anhu moo fi suuxatoon mbir mi woote woote bi wax ne ndonoom it mooy lii bi xidmatil kitaabi wal xadiis yi bu laa bi dahabin mawruuf yi waaye ne ci jàngale ak yare ndax loolu mooy xidmatul kitaab wal xadiis ci la ndonoom di saxe waxoon it ne kanzil kitaabu wal xadiis wal adab laa jamu fi dottin wala jamu zahab samam koom sama alal mooy mooy xam-xam ak li dundal xam-xam loolu lañu sëriñ bi jàngaloon mbokk yi sëriñ xaadim nag ci loolu la nekk kon ku jar taxawu la waaye ku jar jàppale la ak mboolem ñi mel ne moom nga xam ne tey waaroowu seen waara te loolu loolu mooy liggéeyal sëriñ Tuubaa ci dëgg bu ñu tey jàpp naa ne mbooleem li ñuy jàmbat fi ne nii di ko jàmbat ci njaboot gi di ko ñaxtu waxtu war ñu dëgg jàmbat ne mi ngi fi xew bokk na ci sabab bi ci jiitu mooy réer borom xam-xam dañuy wax ne aljahlu ummur rasail yu bon yëpp réer mooy seen ndey lépp loo gis nit ñi def ci ay safaan boo delloo cosaan la ak réer moo ko lal kon bu nit ñi xamee mën nañoo mucc ci njaaxum yooyu li ñuy bañ ci dëkk bi di ko fiir moytu bu nit ñi xamoon yàlla mën na ci dimbali ñëpp kon day mel ne yoon bi gën a gàtt gën a gaaw mooy fexe ba nit ñi xam loolu mooy fexe ba nit ñi xam ñu jàngal leen te it xam-xam yëpp baax waaye rawate nag xam-xamu diine bi nga xam ne mooy defar nit mooy tax nit xam li mu doon sëriñ xaadim nag foofu la sës di jàngale diini ay ay xuquut ci ay at mu ne ci e, ak moyen boppam loolu liggéey bu rëy rëy la boo xam ne ku ne war na ko bàyyi xel waaye kon bu taxawal daara daara jooju mel na ne ci mbégum sëriñ bi la ndax mi ngi dëggal ñaanuk sëriñ bi sëriñ bi ñaanoon dëkk bi des di daara daf ko ko Euh, woo ci njabootam képp ku mas a sancloo barab it daara lay sancloo ñaan nga nag mën naa barkeel xéewali bari ba mu soppali ku nekk njënde lu ne dafa xew waaye nañ xam ne daara la fi doon sanclu kon ku fi nekk ab jàngkat nga war a doon wala kuy taxaw jàngkat euh, loolu mooy li nga xam ne ñun ñëpp jàpp naa ne xam nañ ko ay war nañ koy fàttaliku di ko teewal waaye muy feeñ ci suñu jëf kenn ku ne ci ñun war naa yëg ne waaw moom lan mooy alaaqaam ak daara fi mu ne lan mooy alaaqaam ak xam-xam ginnaaw sëriñ bi fii daara la ko def yow loo fi doon ndax yaa ngi sëq ak daara daara ndax yaa ngi jàppale ñooñ daara ndax yaa ngi yebal sa njaboot ñu leen jàngal leen yar bari na tey lii xew ay njaaxumti xew ci réew mi ñu di ko jàmbat ci diine ji ku ne ci noon nañ xam ne ay doomi ay julit lañ bu dee fii doomi fii ñoo koy def la ci ëpp nag way jur yi am nañ ci responsabilité ndax waroon a jàngal sa doom yar ko te defoo ko te fii nag kenn du fi lay bu ëllëgee ne bëggoon naa samay doom jàng waaye mënuñu jàng mbooloo ngi fi ñu mel ne sëñ xaadim ñu ñu jaay seen seen seen dund ngir liggéeyal xam-xam liggéeyal sëriñ Tuubaa ci xam-xam kon yóbbu fa sa doom ñu jàngal ko yar ko jafeetul waaye saa bu nit sàgganee nag ba njaboot gi jànguñ yaruwuñ nañ xam ne masuuliya bu rëy la ca kanam sunu borom boo liggéey fa muy waxee ne waxi waqifuhum waqifuhum innahum mas'uluun yàlla yàlla mu wax loolu it moo jox nit ñi njaboot wax leen ne qu anfusakum wa wax naaran ko an-naas wal hijaara te li ca jiitu mooy xamal leen yar leen kon xam-xam mbokk yi mooy ngànnaay li gën a wóor fi ñu toll ci dox diggante nit ñi ak noon yi te nag nañ bàyyi xel ne noone lislaam yi ñi ngi fépp yor doole ju dul jeex kenn mënatu leen a tëj say buntu ba du agsi tey jii kenn mënta wax ne sama kër ab safaan du fa dugg ndax moyens yi fay dugal safaan mënoo ci dara li des rek mooy nga yar njaboot gi jàngal leen xamal leen yee leen bañ xàmmee bu ko defee lépp lu dikkati ñu mën a tànn la baax la bon ñu sànni ko weneen yoon nekku fi mbokk yi kon yoon wi gën a wóor gën a ëpp njariñ gën a mat a bàyyi xel mooy ñu yar leen yee leen ba ñu mën a tànn fii ne mën a tànn rek moo fi des tey it nag jamono ji ñu toll ñun ñëpp ñoo ci war dafa yitte jàppalee ko Serigne Khadim mii ak ñu mel ne moom waaye jàppalee ko moom Mawlana Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne wax ne ne yéeneem yitteem ji gën a mag mooy fexe ba daara ji taxaw andi fi jiw woo xam ne ña sëriñ bi defaroon dem ci njëlbeen ga ñu mel noonu mu sosaat leen ngir liggéey bu mën a wéy loolu muy wax ne liggéey bu mu laal suuf loolu war warteef la bu ñëpp war a dégg kenn ku ne ci noonu war a xam ne am nga ci waar bul jàpp mukk ni daa am ñu mu war jàppal sa bopp ne yaa ko war a def keneen jàpp ne moo ko war a def incha allah taala boo liggéey bi dana baax sëñ Abdou Lahat loolu laa doon bàyyiloo xel mbokk yi di ko bàyyi xel sama bopp di ñaan yàlla daara ji nag mu sotti ci dem gën a mate te it ay ay junni ay junni junni nit dafa raw fi yaatal la fi yoon yaatal fi diine ji te lépp doon mbégum Sëriñ Tuubaa doon doon lu ko yokk dara di ko yokk ay maqaamaat ci kanam sunu borom waaye di jar ñu ñëpp maa ngi jéggul di baalu àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Sëriñ Mbàkke Abdourahmane kàddu yi tënku na waaye am na solo lool ci bu ñu ko digloo bu ñu ko déggee te diglu ko.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 mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ginnaaw bi ñu sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Cheikhuna Cheikh Ahmadou Bamba Rasul di jëta ci nuyoo yi siyaar yi ak Cheikh Muntaxa mi nga xam ne moo fi Khadimu Rasul sunu borom guddal aw fanam àggale yéenéem ci toolu Cheikh Rasul di ñaanal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 inna waliyallah hasbiyallah wa ma tawfiiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib nawwir fuaadiya wa lisrah sadri wajhal jihaadiya ka yawmi badri bokki jullit yi fi teew ñi ngi leen di nuyu di leen siyaara di jiital ci nuyoo bi suñu kilifa di sëriñ Mouhamadul Muntaxa Mbakke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 kilifa yi tegee xeer ba noppi ba ñaan am na yeneen kilifa yoo xam ne ñëw nañ fa ngir fësal seenug yéene ci seen diggante ak sëriñ Xaadim Mbay rawatina bis bi nga xam ne ci lañ doon teg xeer njëkk daara ji nga xam ne moom lañ ko fas yéene liggéeyal. bokk na ci kilifa yooyu sëriñ Moustapha Mbacke moom sëriñ Abdul Xaadir Mbacke ak sëriñ Abdoulahat Mbacke abi ñoom ñëpp ñëw nañ fa ngir fësal seenug yéene. ci bis bi ni ko yeneen kilifa yi defee am nay kàddu yoo xam ne sax yëkkati nañ ko fa. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokk yi ñu fi dajal yëpp ak ñi nga xam ne ñooñu fi jiit ndax dañoo amoon ngant moo tax ñu a ñëw waaye maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu sëñ Xaadim Mbay mi nga xam ne moom lañ ñëw tey ci daaraam ji nga xam ne moom lay bëgg a tàmbali ñu ngi koy nuyu di nuyu bokk yi ñu fi dajale yëpp di leen di di rafetlu bu baax ci li nga xam ne moo ñu fi dajale ndax li ñu fi dajale mooy bëggug sëriñ bi rek ndax sëriñ bi léppam da koo def ci jàngale ak yar loolu moo doon li nga xam ne moom la fi indi jaarale ci lim ñu fi indi. bu ko defee képp koo xam ne nag nekk nga ca dañuy wóor na yaa ngi ci toolub sëñ bi te toolub sëñ bi moom wépp yiw ma ngi ci biir tool kon li nga xam ne moom lañuy bëgg a taxawal fii muy daaray jàngale xam-xami diine yi ak yar leen ci loolu daa doon loo xam ne ku bëgg sëriñ bi ku ne boo ko déggee da ci sawar da dana la itteel danga xam ne bërëbu liggéeyu liggéeyu liggéeyu liggéeyal yàlla la kon nag loolu mooy tànk yi nga xam ne moo ñu fi indi moo fi indi bokk yëpp moo fi indi taalib yëpp yal na yàlla def ci noonu xeer ñi ci lu baax xeer ñi ci liggéeyal yàlla te liggéeyal yàlla ci foras yu mel nii rek lañ ko mën a defe kon yàlla na ci yàlla dimbale ba kenn ku ne jàpp ci ba fi ñu bëgg daara ji àgg mu mën fa àgg ndax doy na ne rek ki fi nekkal Sëñ Tuubaa itteel na ko rek loolu doy na ab soññee ñun ñëpp ku ne xam na ne itteel na ko te jëf na ci kon nag eh, ñii ci soññ ñëpp di ñaan yàlla àggale ko jàmm ba ñi ciy xamlu di ci mën a xamee bu baax mu nekk daara yi sëñ bi yoo xam ne ku ci génne danga nekk boroom xam-xam bu mag danga nga ràññee ne ndax danga jàng njàngal njàngalim sëñ bi te ku jàngi njàngalim sëñ bi loola dana des ci yow di la jëriñ ci zaahir di la jëriñ ci baatin kon yàlla na ci yàlla dimbale yàlla na yàlla nangu liggéey bi yàlla ci ndimbalul yàlla tàbbi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñépp moom it di ñu ngi koy sant bu baax ndax wax dëgg yàlla ci naka jëkk ci njàngale mii rek la ne te njàngale mi ku ci nekkal rek ku ci nekk sëñ bi nga ci nekkal moo tax ñun ñëpp dañuy jàppale ñoom nga ci nekkal asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi yëkkati kàddu yu nuyoo di ko teg ci loxol sunu kilifa bu baax gi toog di Cheikh Moustapha moom Cheikh Abdoul Khadir mu di ko seer di ko jox wàccuwaayam tey jéggulu it kàddu yi ñuy yëkkati ci kanamam ndax du lu yell xanaa dañ koo def ci ndigal waaye moom ay waxam genn kàddum képp mën naa yóbbaale suñ junni kàddu ndax li mata wax lépp su waxee dana ko wax ndax moom yàlla du ko defal tawfeex yi léppam tàmbalee sëñ bi yam sëñ bi bëggul lu du sëñ bi dund lu du sëñ bi xamul lu du sëñ bi xamlewul sëñ bi te ñooy sëñ bi dong la ñuy xeñtu kon fu ñu dajeeg moom su waxee rek doy na sëkk xëy na li dul mën a ñàkk mooy kàddu yi cant cant gi ñuy sant sëriñ Xaadim Mbay bu baax ginnaaw buñ ko nuyoo siyaare ko jaajëfal ko ci liggéey bi nga xam ne ci la ma sa nekk ñëpp xam ko ci muy jàng jàngale ñëpp ci lañ ko xam ginnaaw bu mu jàngee ba noppi ñëpp sëñ Xaadim jàngale rek ci lañ ko xam itteem jëpp ci la ko mas def amul jeneen itte dëkk bii boo seetee ñi ñu néew ñoo mucc ci ñàkk tëral sëñ xaadim bind loolu nag ndimbalul yàlla la tawfeexi sëñ Tuubaa la mu di ko def defee ko fu ne baax waaye yàlla defal ko ndimbal ak tawfeex mu di ko defee fi mu gënee muy def dëkku sëñ Tuubaa bi nga xam ne ak bëggam lépp moo doonoon nekk fi di jaamu yàlla di jàngal nit ñi di di leen yàw ni ko sëñ saa waxe loolu rek moo doon bëggu sëñ bi ci dëkk bi kon sëñ ci ñi nekkal sëñ bi ci dëkk bi ci la bokk ndax loolu muy def ci dëkk bi mooy bëggu sëñ bi wala fi ne dañ ne ko yàgg ci teen baak fekk la fa xëy na loolu moo waral jataayu tey jii ndax yàgg naa sonn ci liggéey bi di ci defe di ci demee jomi boppam ak pësséef boppam ak ittee boppam mës a diis kenn ndimbal ci li muy def kenn ku nekk da koy fekk mu toog ci nixmaam di la tëralal dem ba mën a jël fenn di ko fay ngir lépp di jàngale kon ay bokk yu bëgg xam-xam jaayante ñëw wut barab bu mel ni ngir liggéeyal ci jàppale ko mu man fee toog liggéeyal sëñ Tuubaa loolu ñëpp lañ ko defal sëñ Tuubaa lañ ko defal njaboot sëñ Tuubaa gépp lañ ko defal waaye nun ñi bëgg lu baax bëgg xam bëgg alxuraan ay doomi daara ñun ñëpp lañ ko defal kon ñi def jëf jooju it amel nañ ak cant bu baax nañ xam ne li ñu def moom sëñ bi lañ ko defal waaye nag ki ñu ko defal itam yelloon na ko yeyoon na ko ndax ak dundam gépp ci loolu la ko def ñi ngi ñaan kon nii ñu ko tàmbalee tey yàlla na àgg ak jàmm bañ daje di ko ubbi ñun ñëpp kenn bañ a manqué te li tax ñu def ko itam suñu xaadim yàlla jox ko kàttan ak ndimbal mu man ko fee defee na mu ko bëggee na mu ko doon defee mu wéyal ko te yàlla dimbali ko ci ak njabootam ba am njaboot gu ko ci mën a aw goo xam ne fu mu yem ñu tàmbalee fa wéyal ko ba ba lislaam fu mu yem mu ngeen jëf ñoo ngi sant bu baax tey jéggul mbokki jullit yi mbokki taalibe yi lii mooy li nga xam ne moom lañ leen jëleloon fii ci Touba ci ginnaaw HLM kër Soxna May di bis bi nga xam ne dañoon teg xeeru njëkk daara ju mag ji nga xam ne dañ koy liggéeyal Serigne Khadim Mbaye longoor mu amoon nag ci àllarba ji dëppook ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru mai atum 2021 ci teewaayu kilifa yu takk lool kon nag mbokk yi liggéey bàngoog bu mu laal suuf benn yoon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.